su ma déggee wax ji ñi nga war a bëri ñooy daw dem États-Unis toog foofu. bëri na ci bëri na ci ñu ma war a bëri tey koo seet mun na noo mën na lay bëri ñàkk jariñu rek dem Moodu Moodu. xeex meen. bëriwul histoire xeex ko indi ci làmb ji. ah maa ngi seetaan naan moom kuñ ko boole rek kuñ ko jox mu jël. waaw ah, ko jox mu jël. moom ah. waaw kuñ ko jox mu jël. waaw ah, yàlla baax na. waaw te góor fit nag rakk la suñu jëkkër la suñu lépp la suñu nit la tamit wax dëgg yàlla ku baax la dañ doon dem nii de mais dañ leen a gis ne nañ taxaw ndax nit di seet si ñàkk te taxawuñu waxal ko lu baax ndax li muy jëfee kon duñu ay góor. neex lañ la wax ak euh, mbëru kees bi ñu mu tee sax Mor Anta lañ la wax ak wëlli dañ la ñu jox. Ah, am na ñu am na ay yóbbantu yu ma am de Marla de nee nuyu na la. waaw Marla maa ngi koy fay borom géej waay. Ah. fay naa ko bu baax a baax a baax. papaam la daan bëree dañ koo bañal ba ni ko dawal mbaa nga dee da daan dóor ba ngay daw boo dawul mu nga dee moo tax loolu mooy tekki dawal mbaa nga dee waaw da daan dóor bu la dóoree boo dawul mu nga dee ndax lay dóore da lay dóor ba nga daan wala nga daw nga doo mu door laa bàyyi moom dóor yu ci foofu la ko jëlee sant yàlla nit day doon waajuram <laughs> Ali Koura Ndiémé Aly Seynabou doo jug di yëngal ndeysaan tey mooy bees sàq laa lay génnal Aly Kouré waaw noonu la deme lii nag wax dëgg yàlla yéen a indi def lu rëy moom xamagul lan la sax waaye yéen a def lii. mais lu ngeen xaar bu parce que mbëri ñoo ñuy daw parce que ñun dañuy dem ba Burkina te xam naa ne gars yi fii rek la ñu yem Mali lañu ñu yem ak Côte d'Ivoire ah te ñun jàll nañ ko ba Burkina. dégg nga maire bi li mu wax. waaw di ma la ko waxee gis nga rek li ma la wax sànq làmb dafa métti waaw parce que tey sama waajur la dëgg la tey fu mu bëggaan demal boobu dafa daan demal boobu tey gis nga tey si mu toll natt mi ngi ko dal depuis la 2013 ba léegi.